mooy Mathieu Ousmane Seye kon loolee mooy synonyme d'élimination waaye ak lu ci mante am batt na record personnel am Iburi ci liir mooy Kanawo Kayak du am temps bu koy may mu qualifié li ngeen mooy demi-finale buy soxni ci tàggat nag dina doxal ñetteelu épreuve am nag sa 2 août à partir de 13h30 GMT waaye ginnaaw gi kat ba mu ñàkkee final bi ci lii nga ne moom mooy kayak slalom amoon na loo ko métti ak tuuroon ay rongoñ. ndax yéene bi amoon na ko pour réewam boobu de mooy mu indi fi médaille bi nga xam ne depuis fanweeri at ak juróom-benn ñu ngi ciy topp waaye ak lu mënta bu mu xaddi benn yoon ci épreuve boobu dina ko mas a dëggut ñu ñaanal ko mu am ci ndam. ci wàllum football Guinée éliminé nañ leen ginnaaw gi États-Unis am doxantoo seen kaw ñetti bal ci dara 3 match 3 défaite Égypte am ndam bu am solo devant Espagne ñaari bal ci benn kon mooy terminé premier ci poulam de même que Maroc bi nga xam ne moom mooy daan Irak terminé premier devant Argentine Argentine nag ñaareelu place am boobee dina tax na dina doxal ak waa France bi mooy le pays organisateur ñu jàpp ko ci ajuma ji ci lii nga xam ne moom mooy wàllum gymnastique kooke di Simon Bales jàpp leen bu baax moom kat am na huitième médaille olympique am kon dépassé na un certain Sanon Miller kon moom mooy devenir la gymnaste bi nga moo ëpp ay raay nag ci jëwante yooyu. ginnaaw gi ndamam boobee nag états mi ngi caracolé à la au comme ni ngay waxee waaye nag Japon moom mooy toujours dominé classement boobee ak Chine mooy deuxième Australie di ñetteel États-Unis mi ngi ci juróom-benn la toog bi. ginnaaw gi wàllum jeux olympique ñu àddu ci coow li am ne di sport kat moo ko fësal mu dox ci génération foot ak seen njiit boobi di Madu Touré ak entourage bu Amar Diouf ndax balaa liñ doxalee nag neexul dara kookee di Mari Touré. Dakar xibaar boobee di sport fësal mooy que Génération Foot mu ngi ci yoonu kat ñàkk seen pépite boobee ndax moom kat dafa jël ay mbiram li nga xam ne moom mooy doon ëllëgëm da ko jox benn agence bi dafa basé wu foofee ca Uruguay jàppale mu iyoo ci Dodici Sport. di sport mu def benn jàngat mu ne Amadou Diouf bi am na jàppale wane na boppam de ak lee gërë naa comme ni ñu ko fësalee ndax moom doxoon na académie wala boog ay jonte yu mag a mag lu ci mani contre Real Dortmund Ajax Amsterdam mu am sélection avec les U17 mu survolé compétition ca Maroc de mu gàddu raaya boobee ak jaloore mu terminé meilleur zone ginnaaw gi jàllooreem yooyee nag mu baatu benn record ñu wóolu ko ci équipe nationale à l'âge de 15 ans vraiment rien kon prestation yéen moom lay amal nag ba tax na vraiment nag mën naa ne agence di ko wiiw comme weñ voilà di ko war fu neen kon ci la nag du di si duggee ci mbir yooyee nag waxtaan ay waajuram et ñoom dañoo sëgg ci kayit xaatee mag moom mooy que ñoo yor seem li aju ci ëllëgam contrat bi nga ne moom min mooy Amar Diouf xaatim na ko ak waajuram bu góor benn mooy Serigne Adi Diouf ak waajuram bu jigéen muy uyo ci faatu Dieng kon ñoom ñëpp xaatim nañ ko di ak seen empreinte digitale yenn voilà mooy dëggal ne voilà contrat benn moom lañ lëkkaloo ak agence boobee di Dodou Sport dafay dem dafay dem ba 30 novembre 2027 kon lëkkaloo boobee bi am ne juróomi at la jàppale li muy li muy tegtal mooy que voilà ñoom ñooy yor li aju ci transfert ak loolee di publicité yenn voilà nag war na ko xaatim ak yenn ci ay marketing jàppale lépp kat ñoom ñoo ko koy yoral. lu ni mel nag dafa naqari dëgg nag kii nga xam ne moom mooy Mary Touré ci ay kàddoom mu ne nag guleen ñu gis lu ni mel. jàppaleen bu baax mu ne di nekk yóbbu nag fa mbaxana doonee benn ndax contrat benn nag moom la xaatim ak agence boobee voilà nag jaarul yoon kon dañoo jalgati yoon jàppaleen mu ne nag Amara depuis ba amee juróom-ñetti at ba léegi ñoo ci def seen i ay moyens di ci waslu àq ek ñu tekk ci ay conditions de performance yu mucc ayib xam ngeen ne génération ak seen installation varié à dire jàpp bu baax nag mu ne ak lu mënti xew ñoom duñ bàyyi mu sedd di dinañ yóbbu agence boobee fa ma xana doonee benn waaye Amara nag moom ni nga ko joxoñ baaraam duñ ko wax dara waaye ak lu mënti xew wala nag duñ bàyyi mu sedd ek nag nee nañ bu communication bi ngeen ñoom moom la ñuy waajal le moment venu ñoom dinañ ko fësal kon waa Disport ñoom kat doon nañ jéem a jokkoo ak waajur bu góor bu amar Diouf buy Serigne Adou Diouf waaye moom da gantal kon moom décroché wul ndax actuellement ma nga ca Espagne ek sa ñu ngi fësal kooku di Amara sax dafa amal opération ci zone bi ndax dafa amee gaañu gaañu ek jàpp kon moom dina toog 9 mois yi nga xam ne du ko mën a doxal xibaar boobee nañu tartan ko ci kenn mooy Bakary Cissé journaliste ca Disport. Julian Alvarez ginnaaw gi ba mu ci kàddu ne vraiment dafa solo nak xalat jël la tam mu jël benen ndogal ci ëllëgëm fo bëcë Man City Pep Guardiola indil na ko tontu de mu né mom dafa bëgg jouer joué voilà loolee lu mucc ayib la waaye nag bés bu noppé xalat na len xibaar Julian Alvarez mom aussi xarul ben yoon mu tontu ko technicien espagnol bobé mu ne waxul dara lu ay ci kàddu yem ne nak fësalu na ko ci taskatu xibaari li nga xam nak mo leer ba leer mu ne nak chaque saison day def lu ni mel dafay def lolé ñu naan bilan waaye li nga xam ne moom la wax mooy que dafay xalaat li nga xam ne mooy ëllëgam waaye nag nee na club boobee muy dox di Man City club bu mag a mag la ñu wax ci wàllum jënd ak jaay football Londres muy soxandikoo ci ay xibaaram Arsenal kat dañoo bëgg a renforcer seen milieu de terrain boobee ginnaaw gi défense bi mën naan am nañ tax taxawaay bu mucc ayib ñu dala italien boobee di Riccardo Calafiori yi jàpp leen Michael Merino lay uyoo ma ngay dox ci Real Sociedad mu def nag Europe bu exceptionnel jàpp bu baax nag bëgg nañ ko lool club london ñe bëgg ñoo yam fofé ginnaw ga défense milieu bi ña nga ci attaque ba de Corriere dello Sport mu ne kat vraiment nak intéressé na ci signature bu attaquant Napoli bi nga xamné moy Victor Osimhen ñu àddu ci Aston Villa nee nañ intéressé nañ signer kat joueur bu Crystal place bi ngeen mooy Jean-Philippe Mateta bi benn attaquant bu puissant actuellement mi ngi doxal ci jiw yi mom mom mais di attaquant bi sax dafa am bébé doxal ci Ligue nga mooy Ligue des Champions actuellement nak club Unai Emery bobé qualifié nañ doomu espagnol bu yoo ci din Wissane jàppale quitté na Juventus de Turin nag utale ca Bournemouth xaatim fa contrat bu juróom benn at ginnaaw gi bañ fësalee ne kat doomu almaa boobe d'origine camerounaise di mu Moukoko dafa mbébét mbébét boobe mooy mu quitté club boobe du Dortmund SK Germany fësal ne club boobe di saw Southampton la promis bëgg nañ ko yitteel na leen lool bu ko defee ñu dalal ko mu dooleel seen équipe boobee Niklas Füllkrug mooy attaquant bu Dortmund boobee jàpp ne West Ham def na ko nag seen bëgg-bëgg bu sonni ko ci Sky Sport Jack O'Brien doomu irlandais boobee défenseur la kon moom dafay quitté ca Lyon Lyon nag 1 million d'euros de la ko jëndee woon jaay ko waa Everton lu mat lu mat de 20 millions d'euros ak nag xaatim na foofee ci club bu gànn ga Iliman Ndiaye contrat buy dem ba 2028 waaye comme ni nga ko bamtu Everton noppeeku ci mercato bi bëgg nañ Habib Diarra mu remplacer Onana sur des condition personnel kookee di Manu Ugarte amal na déggoo ak waa Manchester United bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano ci des lépp mooy que vraiment nag club bu dee divulge boobee soobu ci waxtaan ak waa Paris bu ko defee ñu amal déggoo fene basse jàpp leen bu baax nee nañ dañoo bëgg. kookee di Matteo Kovacic actuellement maa ngi doxal ca Manchester City kon doomu Croate boobu bu ñu soxla ko gis sën buñ may dina dem dooleel club bu Mourinho bi. ginnaaw gi ba mu nekkee agent libre doomu français boobee di Adrien Rabiot moom kat dàq na offre bi am Liverpool proposé woon na ko tegal ko ci table bi moom kat benn bëgg-bëgg la am mooy mu dem ca Manchester United bu ñu soxla ko ci tutto Juve xibaar yuy soxal ki na mooy kanoog la Fabrizio Romano mi ngi nekkat Chelsea ak Atlético Madrid ñi ngi ci woon amal déggoo montant transfert bu doomu angale boobee xayma nañ ko entre trente cinq ak quarante millions de kon ci ay bés bala nag dinañ ko fësal waaye nag li nga xam ne moo des ba des club bu Corcinores boobee dina séqal waxtaan ak kii na mooy kanoog la nag. su dee condition personnelle mooy lu soxal salaire am ak li nga xam ne voilà nag moom lañ ko war a fay ci aju ci wàllum prime lépp des na ko waxtaanee waaye vraiment ay détails dong de moo ci des lépp mën a yemb. doomu argentin boobe di Aaron Axel-Milnaud de même que Philippe Jorgensen portier danois boobe léegi lépp yem na amal nañ seen visite médicale kenn mooy Enzo Fernandez jàpp leen ginnaaw gi nag ba mu fësalee way yi nga xam ne neexul dara français yi moom nag jéggalu ay coéquipiers gi nag ba mu dellu woo ci entraînement ek ñi ngi fësal jàpp leen jéggal nañ ko nag collègue gas nañ loolee lépp ci suuf foofu. Joao Félix nag commencé na entraînement ak waatiko Madrid gi nag bañ ko béree waaye nag li daal baleer buggul def lii mooy tournée asiatique bi nga xam ne club boobee dina ko amal. ndax benn yéene la mooy mu delluwaat ca Barça jàppale nag am na ay option am na ay option de mooy que club boobee di Aston Villa wala bok Benfica def nañ ko seen priorité waaye moom bëgg-bëgg mooy mu din ca Barça buñ ko ci Diario Sport ñu desandi ca Barça ak seen ndaw bien moom lañ yónni moom mooy dox ci mbir yooyee mooy dossier ji wàllum jënd ak jaay seen directeur sportif boobee di Deco actuellement nag waxtaani xaw na ci borom di ak waatiko Bilbao ndax déggu amagul foofee ci ki nga mooy Nico William kaddu gi nga xam ne nag yëkkati na ko ek média yu bëri wala boog taskatu xibaari fësal ko lu ci mel ni Romano mu ne saxaar si kat benn yoon di lay jàll kon loole benn cax la est-ce que loolee ça veut dire que moom kat dafa vraiment nag noppi ci waxtaan yi voilà ndax amalu ñu déggoo ndax bu ne saxaar si benn yoon lay jaar loolee nag ci bés yi dugg nii voilà nag dinañ ko càmbar xool ba xam lan la ci jublu attaquant norvégien boobee di Alexander Sorloth dafay jege lool quitté Villarreal utali nag ci Atlético Madrid ndax ñaari club yooyu léegi ñu ama déggoo lu mat 35 millions d'euros Randal Kolo Muani Gonzalo Ramos mën nañu rejoindre club bu Atlético Madrid jar yu as moo ko fësal am na ñeneen option de lu ci mën a Gyökeres attaquant suédois bi ma ngi wane boppam ci Sporting de même que Openda Dombéju boobee kon ñu ngi fësal ci këyitu xibaar yi Atlético ma am nay option ginnaaw gi dem kookee di Morata. ci ay bés wala boog ajjuma ji kookee di João Neves nag dina utile ci France xaatim contrat ak waa Paris Saint-Germain. ek nag déggoo bi ak waa Benfica xayma nekk ci lu mat 70 millions d'euros naam doon nañu wax lu mat 120 millions waaye dañ cee dëxëñ doomu portugais biir mooy Renato Sanchez bu ko defee nag ñu jox leen ko waaye nag dugal ci ay koppar bu ko defee lépp mën a cere Tere Moffi moom nag dafa amee gaañu gaañu lu ñu naan rupture de ligament croisé kon buñ moyoon kar saison bi lu ci doxal du bari. ñu àddu ci Bordeaux bi indi woon na nga ci xibaar yu weesu dañoo nekk ci yoon ñu teg leen ay daan ñoom dañoo nekk ci li nga mooy situation de crise financière am nañ jafe-jafe ci wàllum koppar ndax foofee ca tugal nag rawatina ca France laataa ngay tàmbali saison voilà nag di nga wane sa am am bu ko defee voilà ñu xam ne kat yow li nga am nii dina tax nga mën a may nga mën a fay say jour xam naa dami ko doon def fii ci réew mi club yu bëri dinañ tas ndax fii ay kër amateur dong da ngay gis koo xam ne subvention yi ak nag ñi nga xam foot local bi xam nañ li may wax surtout ci équipe régionale yi kon boo Bordeaux mu ne nag borom yooyee jàppale nag dina ko mën a fay ak nag ki dëggal xibaar booba mooy Jérôme Lopez seen njiit boobee kon doon nañ fësal ci këru xibaar yi kookee di kookee dina say xale fii fësaloon nañ ne voilà dina leen indil ndimbal peut-être def na lu kenn yëgul waaye lu ak lu manti am buñ moyul kat voilà dinañ desandi ci Ligue 2 bi doxal buñ soxnikoo ci 11 mondial benn présenté nañu seen ndaw portugais boobe di João Palhinha mu quitté la Fulham yoon Couto Dombrésiens boobe doon nañ ko fësal ci këru xibaar yi dafay quitté nag la boobe di Man City ndax amal nañ déggu ak Borussia Dortmund ek yamuñu foofee dala nañ aussi doomu allemand bi mooy Gross bi mu ne voilà dafay bawoo ci Brighton mu waroon utali ci Italie yi amal contrat ak club boobee di Monza kooke di Keylor Navas jàpp leen bu baax nag bu ñu mayul kat dil boobee dina këpp ci suuf li ko waral mooy que am na détail yem ne nag amalaguñ ci dëkkoo bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano waaye loolu des na ko toppandi Juventus noppee nañ fay waa Dortmund nag lu mat lu mat de 35 millions d'euros di say mbaqus la bu ko defee ñu mën a récupérer kooke di Karim Adeyemi le champion d'Afrique U17 bi nga xam ne moom mooy Pierre Antoine Dorival Diatta mu am fukki at ak juróom-ñetti utali na nag ca Lyon xaatim contrat professionnel bu njëkk kon ñu souhaité ko bonne chance moom mi ne mooy le champion d'Afrique ci U17 yi. Fallou Sène lay uyoo mu am aussi 19 ans di Fiorentina abali ko club boobee di Frosinone actuellement mi ngi ci D2 bi pour rappel moom saison bi génnoon nag voilà natif de Mboro boobee dugaloon na 13 bi amal 4 passes ak réserve bu Fiorentina. révélation la woon ci mondial U17 bi mu doon amee foofee ci Indonésie kii nga xam ne moom mooy Kayton Djandi jàppale si ñeneen ak ca Grèce ak club bi mooy Aris Salonique xatim na fa contrat bu juróomi bu fekk ji la champion d'Afrique biir mooy Pape Abou Cissé bi actuellement maa ngay doxal foofee ci mercato bi nag yëngu na suñ gaynde bëri vraiment déménagé nañ ki ngeen mooy Lamine Camara utali nag ca Monaco lépp yemb na de xaatim na contrat bu juróomi at ginnaaw gi ñoom boobee Krépin Diatta Ismaila Jakobs vraiment dalal ko bu baax a baax ek loolee vraiment lu ñuy rafetlu loolee mooy que voilà nag wane na ko ñëw nga ci club bi nga xam ne voilà tu es à l'aise voilà nag nekkal ci jàmm ndax sa talent dong moo la may nga ñëw foofee lu ñëpp bëggoon nag mu doxal foofee ndax club bi dafay doxal Ligue des kon dina plus de visibilité ndax joueurs yu mag jaar nañ fa la ci mel ay ñoom Fabinho Kylian Mbappé Yaya Touré wala boog euh, Mendy ak yeneen ci joueurs yu mag mag kon pourquoi pas mu jaar seen état ndax Monaco xam ngeen ne bi nga xam ne bés boo fa tojee du ñu yoon ñoom ak Messi ñoo bokk doxalin. Ismaïla Sarr xatim na contrat ak club bi mooy kii sa est-ce que West Ham moomee nag def nañ offre bu 7 millions d'euros ci kenn mooy Boulaye Dia buñ soxnikoo ci Corriere dello Sport et que nag yéen ñu laaj ci commentaire yi ci été bii nag ban club mooy gën pour Boulaye Dia entre Bologne Lazio Wolverhampton wala club bi daf na offre muy les Hammers bi nga xam ne mooy West Ham ngi doxal ci English Premier League bi kon cant ak ngërëm ñeen leen di leen jaajëfal ci yeneen xibaar sur Sport 221